père dañuy ñëw directement ci li gën a fës mooy ci semaine bi gis nañ ni am na combat yu doon xaar le 9 juillet waroon na dox ci diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé ba ñu régulariser woon combat bi doon ko xaar commencé woon def promotion bi da jàppoon datu face à face mu waroon nekk le le le 19 bi nekkul yoo waroon a tombeeg lundi bi di ñëw incha allahu rabbi combat mu jéewul antu ndax blessure bi nga xamante ne Gris Bordeaux amee na ko naka noonu lu ko jiitu Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu doon nañ ko xaar le 30 juillet tamit noonu la demee mu mel ni loolu ngi bëgg nekk xewtu ci làmbu Modou doon nañ ko xaar lu mel noonu yàq ko Ama Baldé Gris Bordeaux doon nañ ko xaar le 5 lu mel noonu yàq ko VIP nit ñi instant bi ñu ngi di joxañ ay baaraamu tuuma analyse nga may defal ci li nga xamante ne lu xew la ci la waaw euh, lii xew nii day yàgg na am ci làmb te ñoom mbay Gueye te ñoom Papa te ñoom Double Less parce que nit du nit nit rek la mën a doon feebar day dab nit waaye nii mu amee nag daawul ame noonu bu njëkk ba boo déggee ni mbër feebar na ah day fekk mbër ma tëdd bu njëkk ba boo déggee ni mbër feebar na day fekk mbër mbër ma am blessure bu fés ñu tabax ko mbaa ñu ñaw ko wala daal nga fekk mu nekk hôpital ñu ne diw feebar na waaye gis mbër ma muy dakkase wala di indi médical di fecc ah loolu nag ci jamono yii rek la xew mu nekk nag phénomène boo xamante ni man dama ko ñaawlu ndax dama yàgg ci millier làmb macha allah nekk ménager yor ay mbër am na benn bis dama yor benn mbëru combat préliminaire làmb ji jege si jouru combat daje ak ñu war a takk sëram defal ko réception mu wax ma ko ma ne ko mais làmb ji de contrat la signé signé nañ koo pare mm-hmm. te dafa am ñett yu tax ñu mën a fomm làmb mbër mi blessé walla promoteur bi jabaram gaañu walla doomam walla yaayam walla papaam mbër mi jabaram doomam yaayam wala papaam wala feebar yooyu yëpp bu dajewul nag kon wala réew mi am jafe-jafe service d'ordre mënul am ñu fomm làmb su yooyu yëpp dajewul nag kenn mënu ko fomm lii nga ma wax nag mun naa ma ne ko mënul tax ñu fomm làmb mu am benn xaritam bu mu ne dinaa def ay pexe wut médical yóbbu ko ma yëg ko jiitu ko fam fa mu ko war a déposé mu ñëw ñu dàq ko mujj naa bëre mujj naa bëre si kon nga xam ni xew <coughs> xewit la boo xamante ni xale yi dañ ko jël ma koy ñaawlu lii xew nii fan yi mais promoteurs yi ñuy takk seen xaalis lu mat ay cinquante millions man avocat wu mbër laa parce que pourcentage u mbër laay lekk mais damay wax li nga xam ne mooy dëgg mënumaa nangu promoteur bi jël lu mat juróom fukki million jox la wala trente million quarante million nga toog ba làmb ji des quelques jours nga dem xoos sa médical ñëw indi ah su boobaa nag day daal di am taxaw seetlu te bari na guddi yi xëy na sax yéen ñii mbër yu mag yi ngeen gi mais mbër yu ndaw yu koy def CNG fan yi am na mbër yu mu rejeté ay mbër yu ndaw yu mu wax carrément ne dara jotu leen da ngeen di bëre fan yii ma lay wax ne fii ñu nekk nii combat yi ñëwaguñu kon mbir mi mi ngi bëgg nag dépassé doon loo xam ne phénomène lay doon ci làmb ci yëg naa combat bu mag boo xam ni mbër mi man ñaari weer ci ginnaaw wax nañ ma ni ma du bëre ñaari weer ci ginnaaw yëg naa ne moom du bëre yi yàqu ñaari weer yëg naa ni moom du bëre ñu toog weer ñu ni ma pare nañu pour du bëre ñu toog quinze jours ñu ne ma semaine bii di ñëw bu dellusee dina déposer visite euh, médicale am nañ ma ko waxee woon jot mu déposer médical waaye kon jubadi am na kon jubadi am na ñu toogaat ma gisaat beneen mbër bu mag def ko loolu nag day rey làmb loolu day rey làmb parce que ren li yàqu ci ay komba bari na bari goo xamante ni wax dëgg yàlla man ñaawlu naa ko te làmb ku dem ba mënatuloo danga ngaa war a tekki waaye di def ay jeu nag ci làmb ak double jeu man loolu dama ko ñaawlu du ma ni ñëpp nag ak i jeu wu ma kenn waaye man xam naa ni am na ñu ma gis ni lii ñu def nii ak tayeef la du ñëpp nag ndax nit dangay feebar di wér di wéradi nekkuma ci tamit seeni menager ànduma ak ñoom waaye yëg naa ni daal am na ci mbër moo xam ne duma tudd turam ba mu koy waaj ñaari weer yëg naa ko bi muy nekk weer yëg naa ko bi muy nekk ay semaine mu war a préparer déposer ji ko yëg naa ko kon damay jàpp ni kon mbir mi caaxaan am na ci biir nañu seetaat nag nu ñuy defaree parce que suñu làmb ji coow li bari na ci trop. yàqu-yàqu yi bëri na ci sabotage yi bëri na ci te mujjee puso bi mu réer xale yi nañu ko moytu mbay gay def dem na ba wàcc ay jaloore rek la fi bàyyi Papa Diop dem na ba wàcc ay jaloore rek la fi bàyyi Manga de dem na ba wàcc ay jaloore te maa ngi lay wax ni la président de la république bu fi nekk mas nga recevoir ay mbër ku fi nekk rek liggéey nga ak mbër yi parce que mbër ak buur musuñu tàggoo waaye nag dafa am nu nu ko war a defee kon nañu xoolaat seen taxawaay nañu xoolaat réew mi nañu xam ne ay porteur de voix na nu xam ne suñu làmb ji suñu cosaan la lépp loo xamante ni mi ngi koy yàq wala mu koy tilimal ah loolu nag dañu ko war a seetaat Lamine parce que loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne daal guddi yi ganasi na làmb waaw. lan la mën a yàqal promoteur. waaw man damay euh, nuyu sama doom Ibrahima Diop gëj nañu gisee mais maa ngi koy masawu ndax xale bu am courage la xale bu am valeur la ndax Pikine la juddoo màgge fi di doomu pikin yor ay millions mënoon ko def feneen mu ne dama daa ànd ak ñoom Eumeu seen di ànd ak ñoom Ndiaga Diop di ànd xale yi bëggoon sport di toppe ba tey ñu may topp kon damaa bëgg a nekk promoteur di tëgg làmb depart fi journée espoir boo xamante ni keroog ñoom Ndiaye Tine ko bëre ak ñoom Ndiaga Thiam man dama defe moon sax ci ñooñu rek lay yem di tëgg ndax nag ñoom ñoo fi ne xale yooyu fi ne tëgg keroog bis ba ñëpp a kontaan mu jóge fa nag combat bu mu taxawal rek jafe-jafe daanu na ci kawam man Ibrahima dama koy ñeewante dama koy gis sax di ko làqatu yoreelu ma ko dara yoreelu ma dara mm. waaye day xale at ya néew mu doon jàmbaar nangoo liggéey jafe-jafe yi daanu ci kawam te ku nekk xam na ne ay million dafa sax ci xol kon Ibrahima lii ko dal daal maa ngi koy encouragé bu baax a baax di am mbégte ci ngor gi mu am ba kenn dégg ko ci dara làmb ji mu jógee tëgg ko journée bu mujj bi nga gis la ko ci fekk ñu dóor ko ci sées mu fanaane hôpital tey mu yaakaaraat journée bu mel ni mu yàqu ak yi jiitu woon wax dëgg yàlla metti na te nag soutien de famille la xaalisam am na feneen fu ma ko mën a def kon nag moom maa ngi koy masawu baax mais li mu mën a jural promoteur bi nag mooy da ko yóbbu fay te Lamine bu fekkente ni at mii promoteur ñëw na yokku làmb ngi yokku ndax dina tëgg waaye promoteur bu dem pertement la ci làmb ndax ku nekk xam na ne xale bii di ko dal ren ci ay combat wax dëgg yàlla bu ne duma ñëw déwén man du ma bett te dinaa ci ànd mm-hmm.